moo ko ci xeex ko ci xeex bi mhm. Balla Gaye domine ko ci xeex bi xam nga mais man combat bi su fekkee man maay jiri runkum-kum boobu muy wax da koy def ak Balla Gaye du ko def na naxanteeg Balla Gaye ba am lu mu bëgg parce que gëñ na bëree gëñ na bëree bu dee day ñëw rek indi xeex bi taxaw dóorante ak Balla Gaye dina si am mbetteel man maa la wax lii na kii mhm. maa la wax lii waaw. mais mais mais tey jii Gris Bordeaux aay nga ko rukum bi mais Balla Gaye 2 yenn circonstance la war a bëri si Gris Bordeaux. arbitre Balla Balla day ñëw Balla day ñëw. ndox du bàyyi noonu Balla day ñëw. Balla Gaye ñëw te man maa la wax lii gis nga combat bi di ngeen gis beneen Balla Gaye boo xam ne buy yeewu ci làmb buy ñëwaat parce que Balla actuellement combat bi da koy liir day liir giri day yow mais day liir giri nga ne man maa la wax lii Fadam. bu mu ne xoolal bu mu ne benn bennal sax xool giri lu muy teg dina ko benn bennal mais benn bennal boobu du yàgg. mais day lire giri ba pare amna solo amna solo day lire giri Boynar ma ngi lay nuyu di la ñaanal jamm la grand champion Boynar, naar yow it euh, laaj pour nga wax ci day yomb ndax jaar nga faas yaakaar na ne te pal ki de bu doon ñaari fan sax nek nga ko yon ñaar lan nga ñuy wax ci digënté Balla Gaye de ak Bordeaux ci combat bi ñu jëm boy waaw fadam salaamaaleykum ma ngi lay jaar di la di la wax yow moom bo yow moom dundee moom làmb da ngay dundal làmb. jërëjëf dëgg la. di nga xam ne ndeysaan ñoo nekku na woon équipage. ndeysaan dëgg la naar. def na ci analyse yu am solo cest dire même Mercedes déglu naa ko mais ku xam làmb la ku xam mbëru Fass la. Mhm. mais làmb Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux dafa am lu ci laxasu ñoom ñaaw ñëpp samay samay samay sparring partenaire lañ. ci nekk ñam naa la. Mhm. mais dama bëgg ñu dégloo xel ak xam-xam. macha allah. man gaaw ma di wax ci làmb mais ba gàllaaj bi nga am ba may wax ci yow sax dafa dafa gaaw ma di wax ci làmb booy xool man dama commenter ci làmb jàmm dinaay dee rek suñu waa kër. bu ñu commencé di ëppal dañ dama dama tàmmeloon combat Balla gay buy buy daan rek ma wax leen day daan buy daan rek ma teel leen wax dañ koy daan. après ñu commencé di ci ëppal nag bu combat amee rek ñu woo ma téléphone ma xaw mais ma tëj bul bul ma wax ne dama am gàllaaj man mi nga xam ne dama bëgg nga ñëw nga jox ma benn affaire <laughs> yaa ma dégg Omar giri giri bokkoon naa ci sparring partenaire bi ko gën a jege écurie Fass dëgg la booy xool ba ñuy xaw a tàqali ko sax fiiru fiiru Balla Gaye ak leeroot ko day bëri Balla Gaye ndeysaan ndeysaan ak ni ma Omar bëggee woon xaw ma jege mu xaw a fiir mais li ma la wax ñoom ñaar seen combat. Mhm. Euh, Balla Gaye dafa nekkoon ci benn dynamique boo xam ni dafa ñëw 2006 2008 ñëw fekkuñu foofu ñun ñëpp tëb. mais bu mu tëbee fu mu mu fekk ponkal daf leen woon ni fii laa teg suma bët. Mhm. Mhm. Gris Bordeaux jamono bi muy bëree ak Balla Gaye fekk na Balla Gaye nekkatul laa wax Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 lu la waay wax lu la waay wax ci moom ak giri lu ma la waxul giri ba muy bërig bombardier man maa nekkoon sparring partenaire am Fass dañoo réunion ndeysaan mbéygee yàlla ko yàlla yërëm mu ne bu ngeen bëggee daan bombardier naar ngeen di jël ma waxtaan ak ñoom ne leen man làmb sama liggéey de mais duma yàqal sama beneen liggéey dañ koy defee nii ak nii ma jàpp ci combat bi donc giri euh, li Mercedes wax dafa am ñaar yu ma ciy dëggal rek mooy moment bi giri di ñëw noonu dafa tombe ak ay zal di génn ak Tapha Gueye di génn mu mu indi benn état bu raar ñu ngi ci Tyson mooy ba muy bëri ak Antoine Baaxum wallaay ndeysaan sama yaram ba muy bëri Eumeu Sène bu njëkk ba hmm. mais ba mu daanee bomb ba ba ñu préparé bombardier ci àjjuma bi ñuy bàkku xam nañ ni dañuy daan bombardier ñu ngi entraîné jour boobu Moussa ñu ngi ci bile ba mu daanee ba mu. foofu foofu booy naar dama lay dagg. waaw. bi ngeen di sibile ne da ngeen di daan. waaw bombardier. waaw. ca entraînement ba ca la ma la ma gëstu ak la ma jàngat. waaw nee nañ Moussa dana fekk ca jour entraînement dernière séance su entraînement ci vendredi. waaw. le Moussa ñu ngi jóge ci àll bi. sol lu xonk jur. waaw ak rib ñëw. ñëw daal boobu boobu boobu boobu entraînement neex na miiri day fes dell maa ngi yee. maanaam gars yi indi xaalis di teg. buy boobu boobu bëre naa ci. boobu xaalis neex na boobu temps booy ñëwee entraînement booy ñëwee ba léegi dem combat bi. maa ngi ñëw ci yow. yow aca booy naar déclenché léegi. moment boobu ñoom ñaar seen yoon dafa compliqué mais xamoon nañu ñoom ñaar xamoon nañu dañuy bëre. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Balla Gaye daaw naa ko wax ne Omar mu ne ma naam ma ne ko écurie Fass du mbër bu ndaw de écurie bu ndaw boo xam ne daa dajale ay champion li ma leen di gis ngeen ni entraîné ak li ma gis Fass ça n'a rien à dëgg la. mbëru Fass ku leen bëgg a daan da pare da indi lu wóor. man ne ko yaa ngi bëgg bëri Gris Bordeaux boobu yàgg na ma ne ko Gris man dama bëgga débat. <laughs> man balaa may balaa may gën a firi ñu toog kër buur ñu seetaan délai ñëpp faral ci man damay préféré kii buur faral même su ma ko faraloon sax du ma ko faral. <laughs> gisoo bu ñu doon débat man moom ak soxnaam man côté soxnaam lay laay far mais ñoom ñëw seen làmb ma gàttal rek seen làmb bu njëkk ba ñuy bëri. daf leen fekk ci ay tolof tolof mais gis nga Ousmane Toucouleur daf ci wax wax bu doy waar. Gris Bordeaux bu mu bëreeg Balla Gaye bu njëkk moo gën a pare Balla Gaye bu ñeme woon Balla Gaye bu ñeme da koy daan. dëgg la. parce que Balla Gaye 2 ba muy bëreeg Gris Bordeaux jomu gaynde baa ngi fi. mais loo feebar bi dañagul. waaw feebar bi feebar bi gaynde gis nga gaynde ci àll bu ko bukk yi di ko bàtt sax même fuy mun ci sañ day fayu même bu yàlla am na solo lañ ko bu bukki maa ngi ñëw ci Ousmane Toucouleur waaw lu gaynde bi màgget ci biir àll bi da gis guy di ko bukki di ko màtt mais day fayu wallaay ndeysaan Omar Omar mi ngi gëj a nekk mbër est-ce que est-ce que est-ce Omar yéen feebaram kan la Omar mi ngi feebar ca Tafatine. yéen ci bombardier ngeen mi ngi feebar ca Tafatine. dëgg la. Omar dafa pare bëri gi Yékini man bugguma di wax ci làmb damay man su may wax damay bëgg a wax lu ma fekkee. may wax damay bëgg lu ma fekkee lu dund. Omar dafa bëri gi Yékini ñu dem Gambie. dëgg la. ñu dal ci benn hôtel yaayaa invité ñu hôtel bi ñu daloon piscine bi un mètre la ñu ne hôtel boobu dafa xaw a fàññaaral te tali bi sant yi ni ñu fay taxawee dañuy baale tali bi ñu yóbbu ñu beneen hôtel. Mm-hmm. hôtel bi ñu yóbbu dafa xóot Omar Balla Gaye yëgul ñu hôtel bi piscine bi daa xóot papa mi ngi toog di naan café yàlla ko yàlla mm-hmm. yërëm man dama dama miin ndox su ma taxawee sama balcon ñeme naa taxaw sama balcon rek tëb. Mm-hmm. ni ma tëbee noonu taxaw di tooñ Sa Thiès ci angle bi rek Omar gis ma ma tëb rek mu tëb. oui sama ndey. boobu temps poids bi mu ji bu mu jëlee après Yékini poids bi dafa xaw a ëpp. Mm-hmm. mu diig ñu yaakaar day kaf mu di ma ma boobu temps ponkal boo koy sauvé doo ko doo ko song boo ko songee rek yéen ñaar ñëpp ay diig. nga bu ma ko. mel ni koy romb rek fël ko. wallaay ndeysaan. ba ñu ñibbisee. Mhm. ay ut tamit la combat ak Tapha taxaw rek. Mhm. ñuy dem di entraîner benn salle bu bees bu nekk euh, Sénélec bi nekk biir Dakar. Mhm. bu temps coowul Macky Sall gi soog a xew. salle benn salle jaay nañ ko sax temps yi. bañ fa demee jour boobu la feebaram njëkk feeñ. mais mais mais fi feebar bi feeñee avant feebar bi feeñ. waaw diggante Balla Gaye 2 Gris Bordeaux bi nga gëmee ne Balla Gaye 2 di nga bëri Gris Bordeaux. waaw. bi combat bi amee nag topp nan nga réactionné yow en tant que Boy Nar. combat bi dafa ma fekk fii. waaw. daf ma fekk fii mu tombeek ma xaw a seet ma xaw a sori làmb tuuti. dëgg la. ma mais xam naa ni ñoom ñaar seen seen làmb du yomb day metti ba pare moment bi ñuy bëree rek dafa tombeek ñoom ñaar ñu nekk ci ay tolof tolof yi day waar. léegi dafa am léegi nag leneen laxu su ci waat Eumeu Sène day jàpp Balla Gaye rek di ko daan at na dox ba Eumeu Sène nekk xaritu Balla Gaye léegi Balla Gaye dee gis nga buy bëri buy bëri buy bëri Gris Bordeaux. day am benn genre di benn genre lu muy lu muy bëree waale. loolu dafay joué. Hmm. Euh, Ibrahima Ibrahima gis nga li la Ousmane Toucouleur wax noonu. kuy bërëg Balla gay di indi xeex xeex daanul Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 ba keroog muy bàyyi bëre la surprise mën na ñëw rek mu jël benn crochet menton tombé muy yëngatu lépp. mais RFM dafa bokkoon ci ay daan ay bombardier ay Gris Bordeaux fu mu leen fekkoon day ñëw tàllale loxo ay ay ay Yékini léegi moment bi ñuy moment bi ñu war a bëre. ñoom ñaar daf leen nekk ñoom ñaar yëpp ñu toog ci tolof tolof. Balla Gaye ku ko bëgg a daan du ay da ngay ñëw di ko duma du mën bu ñuy duma. yool na ñeme na mën na làmb. mën na bëre mën na bëre. Ibrahima Ibrahima Ibrahima Gris Bordeaux xeex du mbëninam dafa dafa dafa mën aller de gauche. booy naar damaa bëgg. damaa làmb ndax li ngay wax nii. waaw mën archive la. ndax diggante ba numéro Gris Bordeaux. da nga koo gis avant. pourtant maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñaari qualité mbëri da ngaa yàqamte rek. gisoo mën la gisoo Ibrahima ñu koy wax loo mëninam xeex la xeex du mën mëninam daf daf ko daf ko mën mais bëre lañ xamee ñun ñun ñun ñun ñu ne doon nekkoon face Gris Bordeaux man bëre laa ko xamee. dama bëgg nga dugg ci dama bëgg nga dugg ci biir xuus ci biir avantage bu Balla Gaye 2 li am ci diggante ma Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux avantage am am ci diggante ak Balla Gaye 2. xam nga ni Balla Gaye 2 combat bi day damyee xam-xam lay bëre. laay la la mu la mu bëre woon ak Yékini lay bëre xam-xam. naa naa wax naa la ko de. day day day tàllal loxo bi ca kaw soofantal léewtoo bi bi. wax naa ko day day liir Ibrahima Ibrahima sànq Mercedes ak kii wax nañ ko booy xool ñaari mbër yi bu ñëwee ci côté forme kee géej na bëre kee bëre na ci diggante bi ñetti yoon. kee gëj na bëre kii bëri na fekk Bombardier bëri na fekk Modou Lo Ibrahima mëninam bu njëkk bëre la lu muy dee xeex kii ñëw naan ko xeexal pour man amoo pour man pour man pour man da ngay yombalal Balla Gaye combat bi loolu du xam-xam du xeex Ibrahima ñu ngi ko xamee woon jël tànk ak riñaan ak paquet loolu la daanee ñu bëri wala mu jéem a yuus bo maylu maylu Balla Gaye man man man pour xoola combat bi moo wax la ñaari baat dam yéla de ma wax la ko tey de dam yéla kay man naar li ma wax kay mooy am Balla Gaye da ko booy naar booy naar fan nga teg dañuy dem yee foofu dama bëgg nga dugg fa nga teg ne Balla Gaye dañuy ñëw pour dam yi ak Gris xam nga la moo tax xam nga la moo tax dañuy dem yee dañoo ñamante ñoom ñaar bañu ñuy Ibrahima ñun ñi xam sport yëpp xam nañ ne bu dee quatre vingt dix pour cent booy jox mbër bi gënoon pare Gris Bordeaux moo gënoon pare. parce que Gris Bordeaux booy xool combat boobu dañ ko dafa dafa loolu kër Tapha Gueye dafa dafa nax Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 daa yaakaar ne Gris bëggul combat bi Gris dem lëlu ci kër Tapha Gueye ci combat bi. ba muy ñëw forme bi bi mu fekk Gris forme boobu da koo bett. moo tax booy xool combat bi Balla Gaye affaire de affaire gaynde la fa wane indiwu fa sax benn état benn état combat bi ba mu taxawee ba léegi dama ko gis mu teel a dem école ba maa ngi gis benn image am fekk fa yee dama wax Lamine Golo benn wax ma ne ko Omar dem France dem États-Unis man maa xam Omar man maa xam Balla Gaye kenn xamu ko man maay sparring partenaire man maa doon kontaan ak moom Balla Gaye su ma la gisee sama xel day dal. na dem mu daa am lu ma lay laaj. waaw combat yi gën a am solo ci carrière Gris Bordeaux. waaw booy naar la kontaagal gañe ko. waaw combat yi gën a am solo ci carrière Balla Gaye numéro 2. booy naar la kontaagal gañe ko. loolu yàlla boo ma ko defal loolu xoolal yàlla defal man maa lay gën a bëgg sax combat bi xoolal dama lay jox nga lekk ba suur. jox la ngay naan ba mandi yóbbu la ñu may la ay millions bu laaje ma maase la ma maase la bu laaje ma wote kër ga ñu defal la nguur ba ñu defal la nguur ba indi bu laaje ma yóbbu la sama appartement ma yóbbu la sama appartement tejj la ñom ñaar ñep la ko defal bu laaje ma jël sama auto, ma jël sama auto jox la ñu yak sama mercedes yak sama 4 man damay yàq mbeur kon dom moo tax mbër bu ma nga nga ko dama lay def kon sama dom, dila da daf may jaral may fanaan ci mbedd bu dee xeex may xeex ak yow bu dee box may box ak yow bu dee dawal may dawal oto bi bu dee xaalis bi maa lay yóbbu ñu may la ay millions nga yuuxu bul jooy de bul jooy de giri giri keroog ba ma ko ba ma ko ne Pape Diop dina la woo keroog Balla Gaye ba ma ko yóbbee ci kër Cheikh Tidiane kettal la mi mooy ñoom ñaar combat bi dinaa la ko wax ba pare nag damay wax li ma gis ñaari état yi yi ma mujjee gis li ma mujjee gis non xam nga da ngaa wax da bu njëkk ba ne Gris Bordeaux moo gënoon a jekk Balla Gaye numéro 2. bii damaa gis damaa gis Balla Gaye bu bu taxawaat bu bu commencé. Balla Gaye taxawaat mais Balla Gaye 2 bii nga gis. waaw Balla nga gis Boy Naar. waaw balaa maa ñu ci Ousmane Toucouleur. Balla Gaye 2 bii nga gis ban combat la lay fàttali ak Gris Bordeaux bii nga gis ban combat la lay fàttali. a ah, Balla Gaye 2 bi ma gis daal gis naa gis naa daal yatt bi taxaw na bu baax mais xam nga man gis kese du ma doy. man lan mooy doy fekk la nga toog mbëkk la saaga la ci taw téye sa ngem bu ñu dóorante xaw oh, man man da da da dama am benn benn benn sparring partenaire bu ma gëmoon boo xam ni gëmuma ñëw sol blouson ànd ak mbër ñëw bàkku man mbër dañuy préparé wu maag yow pendant trois mois ñooy ànd box ñooy ànd dawali ñooy ànd contact ñooy ànd guddee bëccëg di fanaanandoo ñoom ñaar ku ci ba nga doon pare Gris Bordeaux ba muy préparé Eumeu Sène bu mujj bi man ak moom ak Maodo ñoo ko préparé biir këram ñu ñett day toog ba ci yàgg rek xool ma jooy dama cay sama naar bi kenn du yow keroog sama sama Mercedes quartier bee ngi toj entre puut ma am lu ma ko war a jëlil ma ne ko lii musuma ko def sama àdduna ba may dugg pour la sama quartier toj Balla Gaye 2 sama ñeenti oto moo yàqu sama compte tafatin sama sama Hyundai volant droite le moteur bi coulé ba mu daanee yëkki di 4-4 Frontera bi gars yi yegoon ci kaw ci buntu këram maa ko moom ba ñuy dem gàb bi le moteur bi coulé ak yeneen man damay yàq sama mbër sama mbër dama lay damay li may def ak yow day sincère mais damay gedd nag ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw man sama yaay daf ma yàq man rek maay mbër bu bëri petit combat ñu ñu ñu fay la cent nga ñëw sa yaay rey ñetti xar invité écurie bi yëpp Mbaye Gueye ak Moussa ñu nga ni lii musu fi am ci mbër. léegi li ma la mën a wax. li ma mën a wax ci combat bii. loolu nag laay tëjee live bi. lan may ma ma ñëw booy naar booy naar booy naar taxawal tuuti. foofu dama bëgg nga suufle tuuti. xel mu dellu si waat amateur yi toogaat. ma dugal Ousmane Tukulóor. loolu moom lay tëggee live bi loolu nga may wax moom lay tëggee live bi. ah. Ousmane yaakaar naa ne xam nga Balla Gaye numéro 2 ndax deret leen boole ak mbokk. waaye Gris Bordeaux la nekk ci moom yaa ko def ci moom. waaye dama lay laaj lenn. Gris Bordeaux lan la war a moytu ci digganteem ak Balla Gaye numéro 2 ak Balla Gaye 2 lan la war a moytu ci digganteem ak Gris Bordeaux ñu tàggeeñal yaatal. ma xamal waxal ma dégg état yi ma ñaari état yi ma gis gis naa Balla bu pare physiquement mais xaw ma nag contact bi xaw ma contact bi ci xool bi ndax contact na bu baax wala contact na nu mu war a contacté Gris moom xam naa ne dina contact mais man ni ma gisee Gris ah xaw ma ndax dafa tegle woon yére xaw ma lan mais ni ma gisee Gris de te Balla boo xoolee kanam bi dafa ñeer kanam bi dafa leer dafa wàññi pouvoir jiri mi ma gis nii li ma ko daan gisee rek laa ko gisee ci combat Ada Fass xaw ma nag daa am lu muy nëbbam déet. combat bi daal lu muy nëbb. booy naar bàyyi ko mu développé bàyyi ko rek maa ngi ñëw ci su fekkee daa am lu nëbb mais man de suma sama gis-gis laa wax de. peut-être mu am lu muy nëbb mais man dama gis giri boo xam ne parce que giri bu daan am combat du ñëw si làmb naar dëgg la wala déet. waaw. giri bu paree dëgg dëgg doo ko gis fenn doo ko gis fenn. mais combat Ada Fass keroog bu mu ñëw naar xam nga li ma la wax dungi doy xel. waaw mais gis naa giri boo xam ne dama ne jiri pareewul dama ne jiri pareewul parce que ni ma ko gisee mu ñëwee jëmm ji mu ñëwee peut-être mu am lu muy nëbb peut-être nag mu am lu muy nëbb yàlla rek a xam mais ma sama gis-gis laa wax dama ne jiri pareewul dama ne jiri pareewul waaw mais combat combat bi Balla du mbër bu ñuy Balla gaynde la du mbër bu ñuy du bu ñuy duma Gris bu bëggee daan Balla nga am na benn bërëm boobu muy reculer di reculer noonu di léwtoo benn benn boobu loolu latéralement combat bi duñ ko njoos combat bi dañu benn benn la latéralement lay doon Balla du xee du du du ñëw rek bu wax nu mu bëree woon ak Yékini noonu lay bëre Gris Gris tamit mun mun na dox si maanaam Balla Gaye ne ko nag ñu jox si combat bi. arbitre ne prix mu ne day indil Balla xeex taxawaat pour sàcc Balla mais loolu yëpp nag xaw ma nag laa lay fekk si suuf mais Balla du mbër bu ñu duma te xoolal ñi fi dàqi xeex ñëpp daf leen duma ñi dàqi xeex ñëpp daf leen duma mais combat bi man de su ne nee naa la wax combat bi lu muy déroulé yàlla sax ñu ma koy wax fii boo ma wooyee suba. na yeneen amaan Ousmane Toucouleur amaan na yeneen live yoo xam ne nii dinaa ko def ndax bëgg naa dem jëli ji soose bu faas bëgg naa dem jëli ji Lamine Golo mi nga xam ne ñoom ñaar ku nekk yaa gën a jege mbër bi te boobaa yen ñëpp dañ ciy duggaat mais Ousmane Toucouleur tey jii lan nga tàggatoo ma dugg dugal Boy Nar wala ma bàyyi Boy Nar mu mu dugg ci ñoom ñaar ku nekk ci lan nga xam ne nii war sa ñàkk ci. doo ko tàggatoo tëj live bi gars am na yeneen live yi ñuy waaj a defaat ñu ngi santal ñu ngi ñaanal Gris Bordeaux jàmm ñu ngi ñaanal Balla Gaye de jàmm aja li ma la wax daal ci komba bi mooy lan mystique amu ci wàll lan moo ci am wàll komba bi visibilité moo koy daan ak déterminé dama gis keroog dama gis keroog benn image yu Gris muy def boxe ki mu doon boxal kooku Jo la tudd Jo moo yoroon Manga 2 pendant vingt ans boobu maa ngi a nekk xale. man moo ma yoroon à l'âge de ma commencé boxe moom moo yoroon man. ma ne Ibrahima Jonn xaw ku ko bëgg teg ci combat bi ci xeex. combat bi du xeex man d'accord ma loolu la war indil Balla Gaye. madame Jo moo ma yoroon à l'âge de neuf ba may nekk INSEPS Dakar INSEPS Iba Mar Diop di def judo boxe kookoo ma yoroon. waaw football école champion bu mag la. xam naa jeu bu baax. xam naa bu baax. am na ngeen ko mais daal léegi booy naat léegi mu gaaw. xeex bi la li la Ousmane Toucouleur wax xeex. Gris dafa jàpp ni dañ jàpp ni xeex bi boo ko arrangé. xeex bi am na fu koy arrangé rek ay gauche gauche ay une mën na toucher ay Balla Gaye ak ay ay coup. mais Balla Gaye 2 ni muy ni muy bëree même boo ko touché dafay dafay bouger gay day bouger day yër day génn day bouger. Ibrahima kuy xoole ku ci nekk su ma la indi woon dafa am lu la arrangé. Gris Bordeaux combat bi bëri moo ko arrangé woon. mais mais Boy Nar li ngay tàggatoo mooy Gris Bordeaux laa la laaj lan moo ko arrangé ci diggante ak Balla Gaye a 2. mais loolu laa la wax ni déggoo ma li ko arrangé mooy léwatoo fu Balla Gaye fu mu fu mu mën a sàcc Balla gay tax ko daw tax ko balaa Balla Gaye di yëngatu mu weñ ko parce que am na poids am na poids boobu. Balla Gaye de lan moo ko arrangé ci diggante ba Gris Bordeaux. ah Balla Gaye de combat bi lépp moo ko arrangé. lépp yàlla tax mër lépp moo ko arrangé ci combat bi. tout est complexe ci moom. dafa dafa dafa nomm victoire ndeysaan. Fadam gis nga ba xoolal Fadam. la lañ lañ lañ wax rek. dañu wax rek Ousmane des na yeneen looy tàggatoo ak looy mi. dama ne lañ wax rek que de Balla Gaye la mbër la tout est complexe ci moom. neexul ba neexul neexul ba neexul. neexul ba neexul. tout est complexe ci moom mooy waajal neexul ba neexul neexul ba neexul. mbër kaamil la nangul même bu dee bu dee daanu mooy waaja waaye looy tàggatoo Ousmane Toucouleur looy tàggatoo moom rek laa gis mbër boo xam ne waaw xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp su fekkee juum wax naa loo xam ne du noonu rek la ma gars yi jéggal parce que dañu analyser rek waaw dañu analyser rek waaw maa ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp waaw di leen siyaare yéen ñëpp waaw di wax yàlla jàmm yàgg daal si ñaari mbër yëpp yalla mel wër gi yaram guddu buddu mu ci bu rafet bañ ñëw ci lamba ja waaw ñoo ci lamba ñu bëre combat bu neex amateur yépp amateur yépp comptable waaw yalla na ñëpp ñëw ci jamm lamba ji bañ yaq ci jamm ñu bëre ko ci jamm dara bañ fa xew ci jamm ñu ñëpp ñu di ci jamm di jay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam boy nar loy taggo jaajeuf waaw limay limay taggo moy boy na ñaari mbër yu ñaari mbër yo xamne buñu ko dama la bëgg ba xawu fu may nekk barki yalla mais Fadam maa la gën a bëgg billaay maa man lii wala Instagram ba aw aw ma ko woon sax yaa wax ma yaa wax ma dugal Instagram aw ma dindi woon naa sama Instagram bu yàgg. parce que jamono ñu may invité day fekk may wala liggéey yaa tax ma defaat Instagram mais naa la wax ñaari mbër yoo xam ne ñaari yoo xam ne bu ñu contacté mais nga gis làmb bu neex. waaw bu ñu ne rukum dajee kuy takk ca kaw. waaw bu gis nga bu ñu boole bu ñu contacté. nga gis combat bu neex mais mbës bu ci kontagul ci ñoom ñaar di di di nga wane peinture ci kaw fekk ci suuf dara newu fi nga bett say nga bett nga nax say supporter nax say mbokk moo wax la ko tey combat bi ki ci gën a contact moo koy jeexal. wallaay ndeysaan kooku booy naar la. waaw li ma leen li ma leen li may wax waa réew bi rek bu fekkee ne wax naa fi dara loo ne nii neex naqari na kenn maa ngi koy jégalu yaakaar naa ne lépp lu ñuy def di ut suñu connexion wala ñuy tokki mbedd mi wala ñuy wër foo xam ne dañ koy def jee ngir bégal leen rek a tax ci wàllu làmb amuñu lu leen sut amuñu lu tax ñu leen gën bu fekkee wax naa fi benn baat boo xam ne ni romb na rek maa ngi jégalu ñëpp maa ngi ñaanal Gris Bordeaux jàmm maa ngi ñaanal Balla Gaye 2 jàmm maa ngi ñaanal képp koo xam ne ci axlu làmb nga nekk rek maa ngi lay ñaanal jàmm di ñaanal Boy Naar di ñaanal Ousmane Toucoulou le grand champion mais mais mais Balla bi bi ngi bëri mbër bu bëgg a lekk mën na mën na lekk xar. parce que koo xoola mën koo xoola mën yàpp rek la bëgg. Eh, lu muy lekk di dugg lekk sax de billaahi. jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf nañ leen yéen ñëpp gars yi na solo.